salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu baax a baax di am contentement ak mbégte janu ngeen chaque jour ngir lan indil leen li gën a fas ci xibaaru làmb noonu laay def daal di ne saraax ci journal suñu làmb moom nag ba xëyee ci xëtam mu njëkk la xëyee di diggante kante mooy Modou Lo Ama Baldé waaye Ama Baldé la xëy di waxal naan ko en cas de non guérison de Modou Lo maanaam roi ba ca parcelle kii di Ama Baldé ñaari option la am ñaari alternative lan la ci bëri ak nga xamante ni mooy Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass moom mi war a jano ak Balla Gaye numéro 2 wala mu bëri ki nga xamante ni mooy tafaatin Tine ba ca Bawol daal di koy may revanche tax bu la ñu fàtte ne bëri woon na ak Tapha Tine yàggul dara ci li nga xam ne mooy tournoi TNT ba daal di koy daan ndax mën na taxaw may ko revanche wala nag mu def li ñëpp di xaar wala li fan sami di xaar maanaam mu xaar couronne bi xaar Modou Xarañ Lo mu wér ak jàmm daal di bëre moom bu fekkee couronne bi rek moo nekk ci bëtam wala couronne bi rek moo nekk ci yaakaaram fu mu ne nii ba léegi nag ñi dem ci nga xam te ne nii mooy Jamaïcain Jam Production moom mi nga xam te ne mooy promoteur u Sénégambia ba daal taxawal combat bu mag diggante ki nga xam te ne mooy Fils de Balla ak góor a Sock teg ci ki nga xam te ne mooy Kaaw Gourdin ak Ronaldinho ñoo waaye nag gantal dafa am ki nga xam te nii mooy Gora Sock dafa am blessure ba tax ñu boobu boobule combat waaye combat bi nga xam ne que reporté ko moo nar a am di mujjee nekk grand combat ba dimanche 20 mars mu nga te ni moo dox ci diggante Ronaldinho ak Kaw Gourdin promoteur ba di Jamaïcain la muy xamle nag ci journal suñu làmb nee na ñaari mbër yooyu leen dinañ assuré spectacle ba ba mu mat maanaam amateur lu ñu doon xaar ci Fils de Balla ak Gora Sock bu ñu ñëwee jour boobu ñaari xale yi léegi dinañ ko matal sëkk ki nga xamante ne mooy Kaw Gourdin nee na ma Ndeye Mbacke pare naa sur tous les plan maanaam fu sama mbër coupe rek ma baatre ko adversaire am nag Ronaldinho ñu daal di koy tontu ne ko nag loo bax ma ngeer ko te loo ci bañul combat ma bañu ma ko fekkee da ngaa bëgg ñu xeex dinañ xeex ba naaw bu dee bëre nga bëgg ma daan la yóbbu li fi nga xamante ni mooy kër Lebu ya ba léegi nag ci combat ba lañ jëm ginnaaw ba ma koy tooñ moom Assane Ndiaye naan ko Assane Ndiaye yeewil askan bi moom nag promoteur ba jiital Bawol production daal dina dem CNG daal di régulariser combat am combat bi mooy dox ci diggante Mbaye Diouf ak Youssou Ndour moom ba mu ko organiser dafa kale datam dat ba mu jàpp nag mooy 22 mai incha allah ci lañ nar a bëre bu soobee yàlla ca kañ jëm nag problème bi am ci làmb ji gis ko maanaam pour sponsors yi daw nañu promoteurs yi am nañ problème pour génnee ay ressources wala pour génnee ay bénéfices seen ay combat ndax mën nañ ne billets yi ñuy jaay mënul matal combat wala mënul fay ñi nga xamante ni ñooy mbër yi moo tax nag ginnaaw ba sponsors yi dawe dawee làmb mën nañ ne soo sooxaande na ndax xam nañ ne sponsor mooy doxal làmb sponsor mooy jàppale promoteur ni la ñuy laaj nag mooy quelle alternative la ñu war xool pour def li nga xam ne nii dinañ am rentabilité ci li nga xam te ne mooy combat yi ñuy taxawal promoteur yi nag ñu ngay ciy xool ay solution fu mu nekk nii faama Dramé moom mi nga xam ne mooy sama caméra mën damay bëgg ci moom bu baax a baax a baax mooy Ibrahima Diop Ibrahima Diop nag moom mayee daal dinay fës boobu noonu la tax mu fës nag mooy combat bi muy dox diggante Sa Thiès ak Reug moo tax kii Ibrahima Diop turam daal di fës waaye nag turam ba muy fës nag moom ma ngay taxawal beneen combat la may xam ne nag mooy spectacle la nar amala ci ban combat Siteu bu Saalum ak nga xamante ni mooy Mamor le de mai mën naa ne moom ak Assane Ndiaye dafa mel ni ñooy bokk bis boobu jour boobu le ki nga xamante ne mooy Pape Dieng Pape Dieng nag promoteur la promoteur lu simple moom nag mu ngay woote Adrien Senghor dimanche bii ñu jëm teg na fa mise bi nga xamante ne ni mooy mise bu 1 million ba CNG tegee 500 mille cinq millions Iba Mar moom 1 million la teg fi nga xamante ne mooy Adrien Senghor kan moo ko nar a wëy Ndey Faatu Adama Jali suñu yaay jooju noonu ak kan Maodo fay ñooy assuré ambulance bi ba léegi nag ci lutte simple lañ jëm MPC Events moom nag 3 millions lay teg le 14 mars fan la koy teg Mbour Géej dëkkub lu Nikolaay ba ka koy anime ba léegi nag mooy suñu yaay booy Ndey Faatu Adama Jali kan la ko nar a bokkal Momo Ngom le batteur de tous les temps xale bi nga xam ne bu tëggee mu neex bu feccee mu neex dañ koy bëggee bu baax a baax xam naa ne comme boobu Mansour Fa équipe am fa daal dem jox leen fa lan lépp lu fa ruusee ba léegi nag yan production yan production nag kami honoré mbay Kalom lay honoré ca combat boobu noonu combat ba nag mën naa ne lu simple la lu mise un million cinq cent la mise un million pour lourd yi cinq cent mille pour léger yi kan moo ko nar a animé nag ba léegi ki nga ne ni mooy suñu animateur ba Ndeye Lam moo ko nar a animé ci jour boobu boobule ba léegi nag dañuy dem ci nga xam mooy Serigne Modou Niang borom mu ñang production fa la woote Iba Mar Diop samedi bii nii kan moo fa war a bëre BMW adversaire Sidi Diakhaté maanaam combat bu neex a neex la combat jeune la combat xel combat espoir ñu mën koo xaarandi ba léegi beneen combat espoir ba jëm nag di ki nga xamante ne mooy Bébé Diouldé ak Brise de Mer numéro 2 samedi la dimanche la Iba Mar ba léegi kon mën nañ ne Iba Mar dina tàng jël ci weekend bii nii waaye nag fa ñu jëm di Ngalandu Diouf stade ba ca Rufisque mën nañ ne combat Kayta ak nga xam mooy Sapeur danañ fa laale dimanche bii ñu jëm ca Ngalandu Diouf ba léegi nag ka bëgg laale ak ka mu bëgg a laaleel di réparé réparé nag moo nekk raq ki nga xam ne mooy raq marle réparé moo dëkk géejawaay dëkk jàmm gën dëkk Pikine dëkk ci banlieue bi nekk rax ki nga xam ne nekk écrit Papa xale ba nag ginnaaw ba mu daanee ki nga xamante ne nii mooy teq jël daal di ciy teg ki nga xamante ne nii mooy albarka kayra kam bëgg nag daal di koy defee muy ondu la fu ñu ne ko on la fu mbaa diisul mu ne déedéet nday mbaake xaaral ma ñëw dama ciy teg ki nga xam te ne mooy bébé bismi ma ne ko ah mu ne ma tafaa mbër laa ci teg maanaam xale bi dafa yokk bëtam la mu bëgg maanaam mooy yëg ci kaw la ci kanam nag raw gën ndax ñooñu ne ko tàllal loxo wala déet xale bi mu ngi ci yoon te dafa gëm làmb bëgg làmb te da bëgg a dem ci kanam kanam ba léegi nag bébé Jali bébé Jali nag fis de sow la war a bëreel kañ la ñuy bëre dimanche bii nii mu nar a nekk combat bu méttee métti combat bu ñëpp di xaar amateur yi combat ba nag ki nga xam ne nii mooy Jali mu nga nekk écrit Jali Birama Coor adversaire am bi mu war a bëreel nag fils de sow mu nga nekk ci écrit parcelle mbooloo ñu mën a xaar combat boobu ne mu nar a nekk combat bu neex a neex a neex ba léegi nag kiñ ca kan jëm la dëggeef numéro 2 le puncheur de Waalo ñu gis ne amagul combat mbëri ñu ngi koy dëkk ku ci mel rëg-rëg nee na bëgg na bëri moom ndax layam layam yi moom bu ñëwee moo koy fay ndax bu ñu ne arbitre ne prime dina ko song daal di koy daal nekk ci entraînement fii ci États-Unis la de guerre numéro 2 mu ngi fii ci suñu gaal Sénégal jël Diop nekk Ndakaaru Njaay nag fu mu nekk nii ma ngay entraîné entraîné bu métti waaye lañ gën a fës ci nga xam ne mooy la de guerre numéro 2 le potisseur de Waal dañoo gis muy entraîné ki nga xam ne mooy ñaa ndaw ñaa ndaw nag moo war a bëri Rëm Junior la mu koy avertir ne na ko jour combat ba dinaa la duma naa la daan waaye pour nga duma sa morom wala nga daan sa morom daa am liggéey bi muy laaj liggéey bi muy laaj nag mooy entrainement bu métti te gis nga xamante ne nii mooy ci réseaux sociaux yi vidéo yuy daw fu mu nekk nii kii di la dogeer numéro 2 moo koy teg lu méttee métti métti ñi gis ay vidéo yoo xam ne entraînement yu méttee métti la ko puncheur de waalo di teg li olof Njaay naan nag balaa ngaa dégle sangu da ngay sangu ba pare peut-être nag kii di loolu gën numéro 2 moom muy ngi teg boppam entraînement yu métti moo mu mën koo teg ki nga xamante ne mooy ñaa ndaw ngir mu mën a daan ki nga xam ne mooy Reum Junior noonu laay def rek balaa may tàggatoo ak yéen daal di leen annoncé nga xam ne mooy émission bu bees tàq boo xam ne Ndeye Mbacke Diop seen xarit seen soppe ah moo koy présenté di yaay champion yaay champion nag mooy émission bi nga xam ne nii mooy fekk mbër bu daan ñu ñëw toog ak yow waxtaan ak yow ci làmb ji préparation bi avant pendant ak après combat bi daal di waxtaan ak yow ci lan moo nekk sa kanam yaay champion xaar leen ko ci Leewtoo TV en direct à 20h tey nag sama premier invité maa ngi dalal caatu yaraax ginnaaw ba mu daanee bulldozer ñu fas yéene waxtaan a moom ci ponk yu bari bu ko kenn rate dañ ko xaar 20h sur Leewtoo production waaye Leewtoo TV noonu laay def rek am mbégte ak contentement janoo ak yéen waaye ki jàpp ci mbagg yi ba mu yemb Fama Dramé la drame tukuloo damay bëgg ci yow bu a baax di la ñaanal jàmm umulaay laay maxtaar damay bëgg ci yow borom appel bi appel bi moom dafa war a am chaque mois ndax gars yi di mën a bëgg bu baax a damay bëgg ci yéen waaye bëgg ci nga xam ne mooy Mendela Fall borom groupe nopp sa jëkkër di ko ñaanal jàmm ju baree bare bare bari bari nday soxna kanaate ah ami ndaw maa bëgg ci yéen kenn du yéen jox leen dig daje ëllëg insha allah ci Leewtoo TV dina